وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آسى مطلب الشفاء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم amdan li munshidina wa daa'i wa munshidi shifaa'i wa dawaa'i man amara al-ibaada bid-du'aa'i ليرفع بي عن البلاء شما لما نيس ما شاشا مرت يا رب لا بد وفزع بالخيرات محمد تبنا الحكيم أشكى سلام ربنا الكريم ولا آله وشعب شر الأذى ما تجد الأرخام لشفائي عسى وإن يوم سوء جاي مبتقيا أو مجيب الداي واشتكي إليه ما من الضرر خل مشني حتى راني متدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع درنا بجاي خير العالمين الأغرمي شوم بيوم رمضان الأشمي يا الله يا رحمن يا ريم يا بر يا كريم يا أزيم اغفر شربنا تقبل منا واحم إيمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الأدب والمزايا وقفنا الأبات والرسايا وابلنا إنشاء الأتات وقبنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معفي يا من له الأمر الورى يا سافي أنت شفاك مكان الداء ولا تعملنا بالابتلاء وأن في مكان الدري وأن في الخير مكان الشر وأن في العلم مكان الجهل وأن في الجود مكان البخل وأن في الغنى مكان الفقر وأن في الشكر مكان الكفر وبجميع المسلمين نأجلا ثم قيم خوفا وأزنا أجلا ونجئهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكل شنبهم فإنهم وإن أسوك يا أحد لخفلتي لم يدركوا بكاد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك دفن يسأروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى شواك من أنا إلى خدا لكنما تلش الجواري أبدأ أموليغ بين الخبائي فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولا أمع بالذي لا ينفعك يلا يا مقلب القلوب خلب قلوبنا عن الأيوب واغرنا بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجد جميع المسلمين ترى لنا خلا فنكفى درا واجد جميع المؤمنين في الأدى والمؤمنات شمع في مخدى واجد جميع المسلمين في ارتخاء والمسلمات بشداد امتخاء wajal jamial ulamaai amilin wajal jamial hamilina muxlisin wajal jamial muxlisina shahidin wajal jamial shahidina nasiin wajal jamial nasiina sadiqin wajal jamial sadiqina faisin waxlina ya rabbana ya rabbana بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فناء دن وخيرا وكفأ من عشان وديرا وآخرنا بيوبيم لوجهك وآخرهم بيوبنا فندلك واجعل جميع إخوتي ونشبي في رحمة يوم سدا دنشبي واجعل لنا أنا وأنا تغبت تفضلا فنسا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا تخاخ وتسخرنا يؤخر الكبير وجل كبيرنا يهين الشقير وجل قلوبنا على التودد بلا تنشؤ ولا تعسد ولا تقشم ولا تدبر ولا تبقد ولا تنفر أبدا مؤمنين خاشئين ومؤمنين مخلصين شالين واغفر لنا وافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية وامي ووقفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم الخيام بجاي خير من شفع مرادا وابا المرخب والحرادا محمد تبنا الامام المبري الامراض والاسام ودليا علي ثم سلما والي ما شاء بالكرماء مبلى المرخول بالدعاء ووفي المريض بالشفاء وللناس ايضا صاد الله شفاء وفيدا يا من يا من يا من يروم لف كل الداي فلا تفارق مطلب شفائي ودم عليه في المساء والصباح واخلص لنا الإيمان وفلا بإذن ربنا وجاء المصطفى صلى ربنا كمصطفى سبحان ربك رب العزة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 bu dee ci dox bu dee ci wax lu man doon nit ki def ko jëme ko ci moromam nitam dafay leble mbaa muy fay bor sunu tànk yi nag naam tuuti wut ndax jóg naa lu gën a jege xombal ak Touba te ba may waaj a dem dañoo làmb lu wér jox ma ko waaye nag loolee la muy rëy rëy ci saayir lii da ko ëpp ci baatin kii toog di sëñ Fallou ay milliards jënd ko lii ñu def tey ji ci kër ji muy tëral ni tudd ko ba ko waajuram di def am nay bokk yu ko jige lool ci wàllu ndeyam ci wàllu baayam waaye nag mu tur wi jagleel ma ko ngir yàlla ak yonent bi Serigne ak mbindum Serigne Touba xasida yi tegoon ma foo loo foo xam ne bi may ñëw léegi maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Ndiaye sëñ Ndiaye mii maa ngi ciy waxtaan ak moom ne ko yàlla dewal na maa ngi woon ci xat-xat yoo xam ne suma ma la yebaloon dong dina doy ndax Mouhamadou Sylla lépp luñ seq bu doon téeméer juróom-ñeent fukk yi xam nga ko kon nag boo demee di nga ko mën a wax bokk yo waaye nag sama jëmm ji lu mu xat-xat-xat rek ma jéem faa teew doontu juróomi nit ndax lii kenn da ko mënta fay kii toog kii toog ne ci sama ndijoor Mouhamadou Samb te li ngeen di doon doon ay gune dégg ngeen Mouhamadou Samb bi muy nekk jamono tudd ñu ko tudd kenn ci xasida yi bi muy ne jamono tudd ñu ko tudd kenn ci xasida am te kon kuñ ko doon tudd di ko tudd mooy alaaji Ablaye Ñang te fuñ ko mas a booleeg alaaji Ablaye Ñang du ñu nangu Moodu jëkk a jàng ndax bu noppee boobu du ñu ñàkk mbooloo Ablaye day ñëw jàng ba noppi rek Moodu ñëw door a jàng loolee la mu la mii bëgge woon Mat Samba tudde ko kii toog bu Mat Samba làqoo yàlla teg ma fi mu bëgge moo ko ba tuddee ma sëñ Fallou mii toog kon nag wax ji jërul soril ah, wolof nee na ku am gudd du lakk ah, danoo bëggoon sëñ Ndiaye tënk ci ay kàddu rek wax ko ndax wóor na yàlla li ma wax ngant yi ma gàllankoor su ma ñëwul woon bu ma ñëwee bu ñëwee dina fi wax lu ko jar yéen ñii itam noo ngi leen di sant ndax xam ngeen ne ñii doomi xasaayit yi la ñu ngeen màgg ànd ak ñoom nekk génération ànd ak ñoom ci li seen baay bëggoon ngeen ànd ci bëggu ko ba bit ñëwee ñii ngeen mara laay àndal kii keneen laay àndal ba tax na loolu lépp yal nañu yàlla dimbali ci barkeb sëñ Tuubaa rek. xam naa ci biir njaboot gi rek daara joo gis am na ku fa yàlla jiital te léegi bi ma ko nuyu laa ko naan dama laa gëj a gis te yëgoon naa ne mi ngi toogoon nekkoon ak Mouhamadou Sylla ci Thiès waaw muy Serigne Bassirou bi xam naa ko bu baax ba tax na kon wolof dafay wax ne. kulim juum ñu ne ko da nga doo juum da dul matal waaye bu nu xasee jël sëriñ Mouhamadou Samb mi ak sëñ Fallou moom mee nag dafa taxawee seen baay ba tax na kon nag li ñuy def rek moo di nu tàllal ñaan ndax toogaay bi ah yàlla dogal na dafa mun a ñàkk rek waaye noo ngi ci xat-xat dama jaari woon waaw da ciy jotal ay kaddu rek bu noppee nu ñaan waaye sant nañ ñëpp.